علي صفا مجيء مسسس غير دم غير رقيا تسسس زلالي صفا مجيء مسسس خير الندى من غير لغيا تسسس زجت لدى الأعداء خبره جاهدا خاتب من الندى كان يلزم سور رسول الله للغاد للمنى وقد قال اني كل زائل يسسس سور رسول الله للغاد للمنى وقد قال اني كل زائل العزيز صور رسول الله لغاد للمنى وقد كان عني كل سوء يفرسس جئت وجئت البار في البار خادما لمن اخجل الياقوت ما كان ينفذ سلام الجلال منتقى خلف خلف لدى البر لا الخاف دلي والقيام سروبي ما وجاك هاور للربي وكل العلماء فاق المناظر يرعد كل ما نور ثيابي منتقالي سنني وينور الأرضاي مني ذهبت سرادي إلى الجمال باغ توكل وكل وما لسانا آمن مستسد صلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد شمبا صلي على محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد samba baba salli ala muhammad sayyidina muhammad fi ba baytila alaaji farlu mbake lanu yaakaar fi ba farlu mbake صل على محمد سيدنا محمد في بيت الله مام شيخ ساجي ماي لم ياك لي بفضل سيدنا محمد شيخ بامبا بابا صل على محمد

سبان جميل جنبي حمد ربي نظيم مصليا على الكرم على الوالد جنبي أسر زار المجيد مصليا على الآلة قلت لي وكلت جنبي سكرت وإصا سنان لا إله إلا وفاك واليمين كي نبي لا خداب دعيا وبمعيم وقد لي أولاد يا إله صدري طريق كي نبي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وسعنا إلى المنطقة المكرمين كي نبي للمستوى الذي ترى يا صلاة وسلام النبي صلى على من جعل قبل الوجود إنا أنت وعلي سيدنا وصدي وسلم النبي صلى على من جعل خير نبي فضلا أنت إنا كن جدلا بدني وعلي كنبي وسلما يا ربي على قدام ليسان والمسلمين سيادام إمامنا المعسكر تنبي وصلي يا سلمة على رسول نظام داخل بابه هدنا سبب كل تنبي وصلي من يا سمد على نبي محمد رسال وعلي وهدنا وكل ذي تنسم تنبي يا سلبق وخدم لا نبي رسال وتنبي تفضل بنا كي نبي ساك العيار عرفا ساك المنير النبي عزان ساك سبيل تربي كي نبي سلي على باب الهدى وإسان تجل كما النبي وسلم على الأمين ساك المكين والمدين لسان ساك الوليد والمجيد النبي ذكر وعيد والمجيد هو المقر لسان من بالتفارة يهود إلى جنان جنابي صلي وسلم يا خدير على سيدنا وقلت باي بشير ونذير جنابي صلي وسلم يا خدير على سراجك المنير باي بشير ونذير شيخ منتخبا صلي وسلم يا قدير على سراجك المنير الزار والبشير والبشير شيخ منتخبا صلي وسلم يا قدير على سراجك المنير الزار والبشير والبشير ليلة ليلة ليلة taxaw fi sa garaaw jublu la wante nakana ndeysaan fa mën a jëm yóbbu mu gaaw yàlla sabar wax leen noo ngi taxaw fi sa garaaw jublu la wante nakana ndeysaan fawal jërëjëf ñu gaaw Cheikh Mountakha noo ngi taxaw fi sa gannaaw jublu lewal ndeysaan fawal jërëjëf ñu gaaw wax leen ñu dee itam Daaru Salaam di xëy di jokkante ndeysaan ku ñu la dee salaamu Seex Muntaxa baax na jëkki tam daru salaamu di xëy di jóg salaamu ndeysaan ku ñu la dee salaamu yàlla sa barke maam wax leen buru di xar xarle kaajo xafara dañ ak i ndeysaan soppe ba yore dal salaam yàlla sa barke maam رقم مخاوات نختار شبابي من وزمها صديق my Lord. te yëngal aras ak kursi yu ak sàbbaak malaayika yi nee suñu borom da ko wottee ñàkk gi mu ñàkk tegtal mbindeef yi ay mbiram ci alxuraan moom day kéemaan gu rëy ndax yonent yàlla muhammad alayhi xayru salawaatullaahi wasalaamu alayhi mi ko sàkku ci yàlla andi ko fi moom képp ko xam ak yàlla boroomam xayruhu tabaraka wa taala wa rasuluhu xaddimu rasul nee na umpale na ma <laughs> ku dul moom du yàlla mi ko bind umpale na ma sëñ ma jéey sëñ Tuubaa dafay ñëwul ci maqaama muhammadiya dafay ñëw ci maqaama ahmadiya maqaama muhammad alayhi ci la yàlla tëbb ku yàlla bind lu waay am ci la jóge muy malaayka yi di anbiyaa yeeg mursalin yi xutb yi ak xawsi yeeg labdaal yi nox jabaaw yi noqabaaw yi lu waaye am ci yàlla rek ci maqaama muhammad yi nga ko min fay di muhammad ya waaye maa kaana fi ahmad lam yudla ahadun fi maa indahu la ca ahmadu ku dul ahmadu attanu ko damaa jàpp su ma yemale kàddu gi fii ñëpp dégg li may bëgg a wax ku di murit dégg may bëgg a wax boo déggee mu naan ku dul yàlla xamul sama maqaama génne muhammad ne loolu dafa laaj xam-xam xaaba maqami an siwa baaxil karim ku dul yàlla xamuma maqaama ahmadiya waaw <laughs> ah, samaahu ahmadu fi samaay wa fil ardi muhammadu <laughs> yàlla daf ko tuddee ahmadu ci kaw tuddee ko muhammadu ci suuf ba mu feeñagul la tudd ahmadu bi mu feeñee tudd muhammadu moo tax Isa ba muy wax waa ay ñooñam njëkku yonent bi dafa ne ismuhu ahmadu wa mubasiran bi rasulin yaati min bahdi ismuhu ahmadu xaadimu rasul boo déggee mu toog taalib yépp toog saaba yëpp toog mokkam yu baax yëpp toog mu ne xam ngeen nu ma tudd ñëpp ne tekk mu ne ahmadu laa tudd waxin la ahmadu laa tudd nga dem ca jaalib mu ne yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu sumaatu suma xaddim man sumaatuhu muhammadu diggante ahmad yi ak muhammad yi ah dix yi ngeen ma may dee ma jaaxal <laughs> dix yi nga ma may moo ma jaaxal waaye diggante Muhammad yi ak Ahmad yi moo tax doole ji mu fii mu maqam Ahmad yi dafa ëpp doole ja Rasulullaay feeñe woon ca Makka ba muy dugg ca xunti ma mook Seydina Abu Bakrin ak doole ji mu taxawee tund jeewal ay nit taxaw ak fital mu ne damay fanaan te tamat ñett téeméeri nit nangam ku ne yor fital tekki ci mbaggam te booba ku du ku ñu wax sa raaxate képp topp leen ñu dugg ci xunt bi ay pitax ak jargoñ di leen làq di làq Seydina Abu Bakrin boog ma tuubal yone tuub naa ko ndax yonent bi làquwul ngir boppam waaye xam na ne Abu Bakrin mu àndal bu làqoo bu làqu bu bu bu ko làqut ndax moom yàllaa ko musal ci nit ñi <laughs> sëñ bi yaa ngi may dégg maa ngi jégalu waa di làq gi mu doon làq Abu Bakr mbaaxu yonent bi day feeñ ci jëfam yépp waaye ku xam rek ko mën a dégg yonent bi di koy làqu waaye làq na soppeem ba xaadimu rasul nag moom képp rek dong ànd ak ñoom 33 ans bind an nii furaada wa mas at baroo wa xumu sumun wa bokk mun wa xumun ka sayaatini manaxtahum min janaabi ba'da satwatihim yaa maalikal mulki yaa rabbas salaatini anabtu iswaajahu li bi azaa lakum war kulle li mislal masakini colonisateurs yi seeni pexe def nañ ci man di ñaar ñaaroo di xelefoo di réunion ngir man li def ba mu jeex ba danoo mujj mel ne miskin koo ne sëñ Bamba mu ne ma waxi waxam mënoonu ma ko dara ñu dégg ma ko delloo kooku faw ñuy ñome di ko wax sëñ Talla faw ñuy ñome di tudd ci sëriñ bi nag ci xóot xóoti sëriñ bi di waxtaane sëriñ bi fi ñu nii sëñ Talla maqaama bii nit ñi di ñaanal rasulullahi muy boo dégg ak nodd loolu nga naan wax asu maqaaman mahmudan te yàlla dig ko ko ci alxuraan ne ko oh, dinaa la yónniwaat ci àdduna ci maqaaman mahmudan angé an rabbuka maqaaman mahmudan yàlla laa ko dig yonent bi waaye xam ne ni bu dikkee ci lay mën a régler problème yi jaam ñi ci maqaama boobu la mën a régler problème yi jaam ñi mu ne ko déggu nodd nag ma ko ñaanal te ku ma ko ñaanal warlul naa la ajjana ba waxtu wa jotee yàlla war koo wàcce moom la sàkku ci yàlla dikk fi ci jëmmi Sëriñ Tuba maqaaman mahmudan mooy ko xam ne da ngay régler problème bindeef yëpp ñëpp di la sant mahmud mooy ku ñëpp sant ki tënk ki tënk faaw ñuy ñoomee di waxtaane lii dul yëpp daan ñaan ca saaba yi ba tey mu dikk dikk fii ci noonu feeñ ci Sénégal gii lu ñëpp war di xam la ndax ko santu borub sant nga ci yow boo xam ne faaw nga sant ko ko sëñ Tuubaa ñëpp ko war a sant li yàlla bind lépp nga koy sant ki suuf yi asamaaw doj yi garab yi wallaahi wax naa ko ci biir mbooloo am xarawal bëti boppam ne jërëjëf xar waaw sant sëriñ bi xar ku yàlla bind daa war ndax bu dikkul loxo dem gi mu te du ànd ko tib bi muy dikk moom rek rek rek ñu ko sëñ Bamba sëñ ñuru la ak taalibe ñuru la baara mën na la ko wax rek nga am loo yëkkati jox ko ne ko maa la ko jàppale waaye wax dëgg yàlla bu guddee damay sonn ak yu mel noonu waaye defoo ko de waaw biñ fi ñëwee ba tey yaa ngi nuy berndeel waaw kon nag yàlla na la yàlla fay ah sëñ baara mii nag wax naa ko ko ba tàyyi ndax nit boo ko dee wax loo xamante ni bii mbooloo tax nga di ko wax da lay wax naa la ba tàyyi ni la sëñ Baara mi jàngkat la ca sëñ Touba kenn gën a ko bëgg xaside yi amul ku ko gën a bëgg xaside yi ndax ba ñu xamante ëpp na ñeent fukki at waaw am xaside rek la bëgg kon fa ko toll ba tax mu indi la lii moo ko xam waaw ndax moom wóor na ma ni sëñ Baara moom ku bëgg xaside yi la waaw xam naa ni it Euh, euh, yëfi àddunaam lu ci ëpp xaside yi man xaw ma ko waaw lim jiital ci lépp mooy xaside yi kon fa tabaarakallaahu ahsanal xaalixiin ah nun itam suñu xarit la sunu mbokk la liñ koy wooye lañ ñuy wooye ñun ñun ñëpp kon ku mu bëgg rek bëgg nañ la ku xaritoo xaritoo nañ la kon noo ngi sant noo ngi lay xamal ni sant nañ sëñ baara ku am taxawaay la ci daayira bi ba tax na bi mu la joxee daayira bi ñëpp ci bëgg ñëpp ñëwit ñi ma ko la cay dolli ko wokkal ma ak waxal ma dafa am lu cay des ndax nit ki ci jëmi boppam sëñ ji mi nit ñi bari nañ ci dëkk bi waaye bis bi ma xatee laa jëkk yendu këram ci bisum màggal ga di fa jàng ba ma fa jàngee ba ngoon ba ma jógee damaa jox otoom ni ma foo bëgg dem dem fa safut bi yóbbu ma fu ma bëgg dem kër jóob laa jëkk di cëpp jóob sama wëlëre bi yor pharmacie bi benn baytu manam er wala xadak gram na la fa jang mu yëkkati ju bari jox ma moo sama rakk jee ma mona a kër kii la laa ma ngi de mam Bamba ma duggu fa ba duggé bama ba bama yëkkatee barki ahmad Bamba da wa dara ba xëcc ci camera bi yëkkati alal ju bari jox ma ko lajël Moodu mi ngi taxaw amna benn bu ñuy wax usman mbay day ñaan ab xalé la moo xaritu Moustapha la dama fa duggu fekk ko mufti buru teud ni jabar ji na maa wéré di ci magal gi ma dugg jàng xëy dégg wa salaam wa rahmatullahi taala barakatuhu faaku moo asi la biyaatu si wa ami kulli laayi moo jabar ji ni ko tangal moom ndox ma sangu tane naa suñ baara faj na ma barke amul bamba laa jël moodu mi yëkkati alal yu bari jox ma ko sëñ jibi lu dem di dem di dem ba yàgg ah nit ku nekk daaw jég bi may defaraat sama kër gi ma dem ba masoo ba dóor ma yóbbu sama alal dem ba ma demee tam ma dese ay néeg yoo xayte war naa ko xaat dama ñëw ci moom ni ko damaa bëgg jënd taay ndax mbokk taalib moom bu xëy jaaxle mbokkum taalibam lay wuti bi mu fi ñëwet maa ngi soixante mille booba waaye booba dama nu wut dekk wutuma sax maanaam dama ñëw ci moom rek te yàlla rek nag tax man fàtte naa loolu sax moom waaye bi ma ñëwee bi may wax muy wàññi ba alal ji mu xamante ni dubli na li nga xamante ni moo ne ci sama poos bi ma toll ci woñ woo ko sama poos di ko fay la def naa ko addi sëñ Tuubaa wax ma fa sa kër nekk ma yóbbu ko woo yi de doo nga tax nag mu def ko kenn dexul mu def ko man sama ji ma ji taxul ak sëñ Tuubaa mi tax ma def ko fi mu sama kër boo fa demee ci nawet bi bâtiment yooyu am na lu fa doon doon seem noonu ba ma ñëw fii doon wut lu ma ko yeggalee ciment bam ma jox ma ngi ci kër ga ma nga mu taayee teg foofu te loolu da koo neex mu di ko def waay kon noonu ko nu gis xam ne sëñ Tuubaa teral na nañ ci dolli ko muy sëñ Njaga Juuf mii di sëñ Njaga teggin kër baayam lañ ma njëkk a tëral ci xasida yi bi ma ñëwee ci dëkk bi bi ma sama mag ju baax ji indee ci dëkk bi muy sëñ bàcc sekk mais sëñ jibee di tax ma gën ko fonk nag sax nag dëgg dëgg dëgg dëgg yëgguma ca mooy dama ko gis mu fonk ay bokkam te nit nag luñ nekk man dox wax te fonkul ay bokkam mooy ba bàyyi ko billaay waajuram bu jigéen wàcc nag liggéey ma ñëw ci sarax sa defe naa sax man gisoo naa gisuma ko ndax man dama ñëw rek ma tek samay xasida di jang man samay xasse ay waye magam ju góor ji xati mo top ci mom ku bëgg wax sa njibi mu dar sa gemmi la waxal sama mag jey lol di ruy may tam sama mag jey fofu la ko tek ndax nit ki moma indi ci dekk bi ba am ji ma fi am do am ju bax jere di sëñ Moustapha nga xëy du fàtte démb maa ñaanal moom itam di ñaanal sama rakk di ñaanal sama soxna yi ak sama bokk yi fi ñew sama bokki taalibe yépp di ñaan li ñu ma defal ni mën ma ko fay ndax waaye nag seen jibi nag man xasida laa am ak taalibe yi boo ma defalee ma yendu sama bopp ak jàngkat yeeg ñëpp indil la ko te kat kuy seet sëñ tubaa booy boo ko seet ko ci nyep mi nu ngi ñaan ci barke borom tubaa sëñ jibi buñ fi jógee tey jii na nga yokk ba ñëpp xam say bokk yëpp xam nga teel ak di siyaar sa kilifa gu baax gi nga xati moom nga fi indi nga xey waajuram mu wax ba di Cheikh Abdou Assis seigne bara bi mu ñewé ba yaakar jibi ci daayiram bi ni dama la koy may muy taalibeb seigne Bamba bu wër ma am ci lu ma leer ndax fu ne ñoo fay ànd dox fi ngeen tok ni tay amul ku njabotuk seigne Touba ko fi tegul tang seigne murtala mu seigne Fall mo fi mujj mam terno ibrahim mu seigne Cheikh aw Balla ñew na fi njabotuk seigne gi ñepp ñew fi. jibi mi mooy murit te mooy mbokku murit yàlla na ko yàlla fa yiw dafa liggéeyal waajuram wu jigéen liggéeyal baayam làq seeni i ngërëm da ku ne jàng na yéen jàngkat yi man nag sama xam-xam bariwul maa ngi dégg ci araab yi rek ñu ne aljanna taxtal aqdaami umuha kenn ku ne sa demuk àjjana mu ngi sa suufu dëkkug yaay jibi nag dafa liggéeyal waajuram liggéeyal ay mbokkam tey ñu ñëw fii seen daayira bii ngeen ko may tombeek mu am gan gan gi kan la muy sëñ Alioune Badara si mu maam Abdou Aziz si baax ànd ak ñaari doomam muy Moustapha si mu maam Maodo si mu sëñ Abdou Aziz si Dabaax ànd ak Pa Abdou mu maam Maodo si mu sëñ Abdou Aziz Dabaax mu Seydi Aj Malick ànd ak soxnaam muy soxna Xadi si kon njabootug Seydi Aj Malick gépp tey ñëw leen toog fii te tey seen toogaay bii du toogaayu guléet ndax man ak ñoom yendu nañ fi ba tàyyi ci kër gi ndax jibil lu mu am ci lu baax du ko teeru wala mu koy wut si dina ni ma am sotti mu ne mu ma ñëwal damay ami gan ma di ko ci sant bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk aw fanam te barkeel ko boole kook soxnaam su baax si muy maam bu sa gay mi nga xam ni daa yaatal ndax na nasru minallahi wa fatun xaribun la sunu borom wax wante nag waa si atun da cay baax dan koy yaatal sëñ Saali woo ko wax nee na nañuy yaatal yaatal googu nag moo waral tey bi ngeen ko waxee lii ku ne xam na ni amul jot ndax ku ne xam na ni business boo ci nekkee liggéeyu yu mel nii ñi lay sollicité day bari liggéey jaayum ciment fer mais da ko faa bàyyi bàyyi ko ñoom mag magay ñii ak sëñ Diop yàlla yàlla yokk ko moom tamit di xale bu yaru boo xam ni dafa nekk ci keppaaru ji bi déggal ko lool di ko defal léppoon sëñ Diop ñoom lay gërëm di la sant mu bàyyi ko fi ndax lii lu ko waral bëgg mu bëgg Serigne Touba moo waral mu bàyyi loolu bi ko baara waxee loolu mu ñëw di nuyu nag sëñ Bàcc Seck baaram yi danoo yàgg danoo yàgg bi may nekk caame frère booba nekkuma ci jibi man ak moom place am laa daan toog di xaar client yi sëñ njagam yi danoo yàgg man ak moom ca marché la bu mag xale yëpp maa leen formé ñoom Cheikh ñi ñoom yëpp maa leen formé ci business man yàlla def na sama àdduna jëpp damaa daw a daw a daw ba wóom yi metti ndax bañ ko ma yàpp mais nag maa ngi sant yàlla ndax damay toog léegi muy dox te li ma ko may mooy damaa daje góor gu baax mu am lu ma jox sirw ma bëgg leen koo baaxee muy salaatu nabiyul ummi bis bu ne boo xëyee def ci junni da ngay toog muy dox ah man de dan ma koo jox secret la yoo xam ne yow gëj naa marché te foo ma gis damay sol lu rafet di làmb di daj yàlla boole maa góor ñu baax ñii nag ñoom jibi ñi soxla su ma am orange money Wave moom damaa yërëm gars yi sax ci transfert yi ba léegi Wave laa leen yóbbu xam nga Wave moom fukki dërëm rek junni bu ne fukki dërëm la man léegi boo ma waxee rek ma la noo sànni ko Wave rek te loolu lépp sëñ Tuubaa ko defal di ci sant nag sama sang bu tedd ba Cheikh Mahamadou Mourtada mu Serigne Saliou ndax man la njëkk am ci taalibe di wax ni jibi dafa yore ay kàddu cant di ko jëmale ci yéen mu am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem di wax ni njabootuk sëriñ tuubaa gii fi daje bàyyi taala maa ngi lay ziar bu baax a baax yow moom yàgg nañoo bokk jotaay ñoo bokk suñu njaxate yow léegi nu ma la wax sax bàyyi taala pen ta bàyyi taala jaxate ndax yow waa njaxatee la nee na mi ngi leen di gërëm di leen sant cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee mi amul fu mu yem ndax lii ngeen ko defal nii yombul ku ne xam ne ni àdduna jot bariwul mais ki la yéene aw yiw ba tax mu jël ay xasida yi sëñ Tuubaa di ko indi sa kër di ko fi jàng ci ni ko boroom xam-xam yi waxee ni xasida yi ku koy jàng bu ëllëgee ñoo lay ràmm yowmal xiyaam ji bi nee na loolu ngeen ko defal amu ci ak pay ci yéen lu dul da leen di booleeg yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa mu fay leen sëñ Tuubaa nag moom ku mu fay yàlla fay la yonent bi fay la man yaakaar naa ni bu ëllëgee noonu mu koy tuddee ci xasida yi ni bu ëllëgee maanaam képp ku tàbbi àjjana ci ndigalu sunu borom juróom-ñaar fukki junniy soxla yooyu nga xam ne dañ la koy jox foofu mu ay yi ñu nekk ci sa yitte yaakaar naa ni di ngeen bokk ci ñëw ñu di seddu ci juróom-ñaar fukki junniy soxna yooyu nee leen wax amin mi ngi sant di gërëm kër gi nag fii moom këru murit la rek xëy na bariwul sax dugg ak génn ndax liggéey ko waral jibi ku ko soxla ci suuf nga koy fekk mais yaatal na yaatal këram gi yaatal goo xam ni amul fu doomu aadama yu jóge ñëw soxla ko ngir ay soxla wala nangam nga ñëw mu di la gàntal wala mu di la xatal wala mu lay won ak rëy ndax li nga xam ni moom moo nekk ci moom yàlla moo ko ci def ak jomam te ku ne xam na ni sëñ bu tedd ku tedd ki dafa wax ni pajum aajo moo weesuwul yu jaddu fil nax ni maa la yu jaddu fil bax dina am looy gis ci dex gi te doo ko gis ci géej gi ñu ni ko loolu lan la mu ni tekk gi ci dex nekkul ci géej ñu ni ko loo ci jublu muy aajo ju faju fajkatu aajo yëpp boo leen fekkee da naan deng mel soow mu way boo weddee demal sëñ Muntaxa Tuubaa boo ko fekkee fa mu toog fa lay toog fees fauteuil ba fees dell di faji aajo te du ci boolee bruit moom nag ci jëmmi boppam nee na buzz baax na trop buzz am buzz nii comme ni ñu koy woy sëñ Moussa buzz baax na trop mais bruit ko gën baril bruit yow del bari bruit del yëngal bu baax na bruit yi bari ndax li nga fi def nii jàng fi xasida gii mu xadimaat bi wëlbati ko at dugal ñu ci miim ya dem ci Seydi Aj Malick Si bariwul ñoo xam ne tey boo leen joxoon micro mënuñu lii man day fu ne laay laal ndax dama amoon soxna soo xam ne ca Dakar taalibe Cheikh la mais su may ñëw bu poos yi wooyee fee te paasu ginnaaw wëlbati bi matewul bu ma jubee kër ga rek damay yëkkati falaa bu damin chaque fois falaa bu damin chaque fois ila laay kurbati goro bi ni dàll ni ma exil lalal ma tapis rouge ni ma tey fi mu ne nii ay gi maa ko yor ba koroog nga ñibbi te boo ñibbi maa lay jox paas kon nag nga xamee ni ñaari kër yooyu du ñu ñaari kër benn nan dañuy jox nag sëñ Alioune Badara mii dafa nekk jëmm joo xam ne ni ngeen ko gisee mu toog nii woyof toll diis gann di boroom xam-xam dox nag àdduna wër def àdduna parce que moom mii lu ëpp ci àddunaam états uni la ko def ni muy waxee wolof noonu lay waxee anglais. doomam yii toog ñoom tamit fu nu xam-xam am ci àdduna yàlla def nu jàng yàlla xiirtal leen ci jibi mii ndax ci koy jibi dong leen saf te jibi xàmmewul kuy murit ak kuy tiijaan ak ku xaadir moom ñëpp la yemale lislaam dong moo ko ñor. tax Kairi soirée et fils mo len di dalal ci makkaanam bi nek fi ci marché Grand Thiès dend ak Concorde Quincaillerie Soirée et Fils meun ngeen fa am les luy xetok ciment fer béton lavabo chaise anglaise ba ci peinture ak lepp lu jëm ci walu bâtiment ay carreaux yuy nes nesi plomberie électricité ak ay réserve d'eau dernière génération li ci gëna neexati kay moy personnel bu qualifié nga fa di xaar lépp loo leen jënd ca quincaillerie soirée fils mën nañ leen ko indil ba fi ngeen ko yittewoo ñoo ngi fii ci marché Grand Thiès dend ak Concorde wala ñu ci numéro yii 33 951 37 95 wala ci 77 639 18 98 ak quincaillerie soirée et fils seen coono ci wàllu tabax jeex na tàkk quincaillerie soirée fils daal mooy waaja